السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والمركز الهداية الربانية ما غلين دي نيو ينيب كسين تور اك كسين سنت دي كو جارة لكي سنين لمن سالميغا خمني مملاتك سما بارام كي اي وخم يوم وقت تلفزيون بي دي تي اف ام ما غلين دي نيو ينيب دي كو جارة لكي موم Euh, xam naa duma ci wax lu gudd euh, lu gàtt laa ci wax ñoo bokk maydaan mii di markazul hidaaya euh, sëriñ Lamin jiite ko déglu naa waxam ji min alifihi ilaa yaa'ihi waaye imaam xaadim njaay de moom bu ma bu ma tënkee samay wax man dama naan imaam xaadim njaay ak sëriñ lamin sàll dañoo safaanoo ci wax ji euh, loolu mooy tënk bi mooy lenn lu ne nam ko gise safaan balaa ko gise yi nga xam ne da koo saxal dama koo dàq yim dàq it dama koo saxal argument yi tam yi nga xam ne indi na ko euh, xam naa ne Euh, sëñ Lamine lii nga indi muy ay argument argument yi xam naa ne toggoo ko bam ñor ndax ni nga daan indee ay dalil ak ay ay ay mbir euh, argument yi togguloo ko ba mu ñor ndax euh, yu ci nekk léeg-léeg nit dana wax wax joo xam ne wax ji mën naa jub mu nekk ci loo xam ne moom lii mu wax dëgg la waaye mu indi misaal misaal ma daane ko léeg-léeg tam nit dana wax wax joo xam ne nii wax ji kenn mënu koo indil misaal ndax boo xoolee jëmmi sallallahu alayhi wa sallam mu doon talaqi alquranul karim ci jibril boo ko misaalee ne jibril da ko doon vacciné pikiir la yor da ko puso bi daa am lu ci nekk te mooy garab te ki nga xam ne nii mooy jàngal gone gi moom comprimé la yor loolu ci wàllu bo ci wàllu mantiq buñ ci delloo ndax muqaddim ak taali ak natiija ñaar yooyu yëpp boo leen boolee benn du ci doon loolu boo xoolee bi nga xam ne nii mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko jibril doon joxe boo jëloon lool def ko muqaddim jël li nga xam ne mooy li da donga bi di jël ci jàngalekat bi ci anam gi nag laa waxuma matière waaye anam gi mu koy joxe nga def ko taali natiije bi du indi mukk ne sallallahu alayhi wa sallam niñ ko doon def jaaduwut ñu koy def kee maanaam buñ ne bu yonent bi alquran ne ko inna sanulqi alayka qawlan thaqila fiqatu hadha al te wa huwa alquranul karim fiqa fiqal nga xam ne nii moom moom la am loolu du tuxu mukk maanaam du ñàkk am mukk buñ koy jox muhammad alayhi salatu wasalam ak buñ koy jox al insanu al aadi ndax law anzalna hada al quran buñ ko jàngee kon nit rek moo ko àttan kon ku mën a doon diisaay ba dana fa nekk diisaayu alquran boobu ak jafe bi ak metti bi moo tax donga bi di jéem a daw du bëgg a toog ci daara ji bu fekkee du ab muñkat kon foofu muqaarana boobu duma duma duma topp taxliil wax ji jëpp jëpp jëpp ba mu jeex ndax Eh, kii bi du ko kii du ko du ko may waaye damay wane rek ne li ñuy eh, bokk ci ay ay masala bokk ci déggin ci biir maydaan mi bari na waaye bii moom lépp dañ cee wuuti man ak yow eh, aussi itam am na foo xam ne it bu ma doon yow du ma waxee noonu ndax boo ne ay nit ñuy manipule xalif généraux yi benn xalifa rek muy sëriñ Muntaxa moom la ay nit dem ca moom wax ak moom te bañ demee boo dégloo li ñu ko wax te déglu ko bi bi te amul bi ñu waxee ba noppi sëñ Abdou Samad wax daf leen ne ci ngeen ma fekk am lu mu wax ne boobu ba léegi maa ngi ciy xalaat yàgg naa cee xalaat sëñ Muntaxa ñàkkut réseau ñàkk réseau goo xam ne li xew da koo xamut bañ di ko manipuler ñàkkul xam-xamit mu saqaf la boo xam ne nii boo déggee mufradaat yi muy jëfandikoo ci luga mufradaat yi muy jëfandikoo ci arabiya ñii ñuy tuddee ay intellectuel gisuma ku ko ciy jëfandikoo bi umqihi wa wa wa tarkibihi kon euh, damay def benn flash rek wane ne euh, maanaam euh, maanaam wax ci jubóowuma ci ci ci ci déggoowuñ ci man ak yow waaye itam nag maanaam waxin wi moom en tant que ab xalifa itam ni nga waxee ne maanaam euh, président de la république ak loi yi nga wax ne ñoo ëpp euh, lan ñoo tiim euh, xalif généraux yi ñoo généraux yi ñoo leen tiim déedéet foofu tam foofu laa gën a d'accord ak yow ndax xalif généraux yi kat benn mooy mbooloo moo xam ne dañuy wax laa ilaha illallah ñoo leen jël doyloo leen korompuruñ leen njabaruñ leen ñoo leen doyloo ba jox leen seen bopp bu ñu leen tëddloo ci naaj wi ñu tëdd lu ñu leen defloo ñu def ko ngir gëm ne ñii ci ci lislaam lañ teg seen tànk ñoo ñooñu nag lislaam boobu nga xam ne moom lañ leen jiitee muy alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa loolee moo leen jox xiima bi kon président de la république bi nga xam ne ay loi yoo xam ne ay nit a dem assemblée te bis bu seen ñu coy warante loi yooyu ko fi yéegal te bu ëllëgee day wàcc ni moroomam yi woon wàcce ñu ne ñu ne nekkoon na ko te ñii lii dañ koy nekk ba ba ñuy dem barzax kon sëñ Lamine boo waxee ne ñoom ñee boo leen yëkkatee ci kaw ñi foofu fi ma fu laa gën a wuutee teeg yow moo tax damay wax ne ni nga baaxoo di indi masala di ko indi diq di ko indi munaqasha di ko indi ay ay barahin euh, bii moom dafa mel ni da nga ko indi jusaafan tey it maanaam euh, xalaatuloo ko euh, xawma nu mu tëdde noonu wasalaamaaleykum seen mbokk imaam Xaadim Njaay